Youssou Youssou Elimando, Youssou Youssou Ndeye Soxna e Youssou Ndour sunu waajangi Eh Youssou Ndour sama joyeux anniversaire mon grand on t'adore Yo sunu Lep lépp sunu sak yaay sunu lep. reewoo bewoo Ali Baba Dior dundal waaye affaire yooyu day def effet. joyeux anniversaire grand dundal loo dund doyul Ali Baba Dior mu ci jaayaan yaay sunu sag yaay sagu sagu di sagu Afrique ñun yow lañu am yow la ñu bëgg yow la ñuy bëggee li ma sopp ci yow mooy liggéey tuut lu bari wax tuuti yusu réyoo rewoo Beo, kendo du yow lu bax ngay wax ci nit ñi diko def ci nit ñi dundal way lu dundu am na njariñ yalla na la sunu borom may guddu bi fan ak wer yalla sam la yok la taxaw la ku lay xaar yalla na xàddi lo songu yalla na ko daan ali baba jondur ken du yow lu bax ngay wax waju yu ji suñu sunu e eyu sunu sunu waajangi ewa